dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne leen di jox xibaar ngeen taamul seen bopp mi AGT news assemblée nationale doon nañ ma jox ñaar fukki junni ngir suukaru koor waaye dama lànk ne duma ko jël ndax nag jëf ju ni mel dama ko doon ŋàññ. mënuma nangu tey askanu Afrique rawatina bu Sénégal tànn ma def ma député fa fecc assemblée nationale may nangu lu nu menn du tey ji lay nangu jël ñaar fukki junni yi nga xam ne suukaru koor la foofee ci assemblée nationale ndax jamono boobu am na ay liggéeykat yu nekk ca fexa nekk fële ca Pikine Est di daw ci ginnaaw fukki weeru arriérés du salaire surveillant ya nekk ci université numérique Cheikh Hamidou Kane ñoom ñu ngi daw ci ginnaaw ñetti weeri arrière de salaire ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci programme xëyu ndaw yi ñoom it ñu ngi daw ci ay mois d'arriérés de salaire conseil en emploi fële ca ANPEJ ñoom it di daw ci ginnaaw ñetti weer yoo xam ne moom nañu leen ameel ci ay salaire sukkaru koor bi nga xam ne ñu ngi koy séddale foofee ci assemblée nationale jëf la goo xam ne dafay wane rek pàccoo moo am ci assemblée nationale détournement maanaam luubal waaye itam mbirum dëmmante ci ressources yi nga xam ne sénégalais ci seen bopp ñoo ko moom ñu jël ko di ko jox ñoo xam ne dañoo yëkki seen loxokat dañu bëgg a liggéeyal askanu Sénégal ci tënk assemblée nationale gannaaw ba mu lànkee ne commission de comptabilité et de contrôle de l' assemblée nationale du ñu saytu liggéeyu assemblée nationale fukki weer ak ñaar yi nga xam ne moom la nekk vice président daanaka mu ngi wéyal jëf ju ni men boobook léegi. kon nag tey li may ñaan mooy rek ñu daal di soppi assemblée nationale ba majorité ba nga xam ne moo fay nekk nekk majorité de rupture ci quinzième législature bi bu ko defee daañu mën a soppi lépp lu bon li nga xam ne am na ci assemblée nationale assemblée nationale dafa war a nekk assemblée boo xam ne dafay démocratique populaire di bataaxal boo xam ne mu ngi tukkee ci honorable député Guy Marius Sagna. AGT News. Vous êtes sur AGT News, votre chaîne préférée. L'Assemblée nationale du Sénégal m'a proposé de prendre 100 000 francs de sucre corps. J'ai refusé de les prendre. J'ai dénoncé ces pratiques longtemps avant que le peuple africain du Sénégal me fasse de moi son représentant à l'Assemblée nationale du Sénégal. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais prendre francs de secours au corps de l'Assemblée nationale, alors que les travailleurs du FERA de Pékin-Est courent derrière 10 mois d'arriérés de salaire. Les surveillants de l'université numérique, cher Amidou Khan, courent derrière 3 mois d'arriérés de salaire. Les jeunes du programme Xëyu Ndaw ñi courent aussi derrière des mois d'arriérés de salaire. Les conseillers en emploi de l'ANPEJ courent derrière trois mois d'arriérés de salaire. Ce score record distribué par l'Assemblée nationale procède d'une logique d'accaparement de patio, de détournement, de parasitisme, de vampirisme des ressources des Sénégalais au profit de personnes qui ne sont que des serviteurs, des représentants du peuple sénégalais. Cette Assemblée nationale nationale, en plus de refuser son contrôle par la commission de comptabilité et de contrôle de l'Assemblée nationale pendant les 12 mois que j'en ai été le vice-président, continue des pratiques de notre temps. Vivement une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale du Sénégal pour une quinzième législature de rupture, de transformation pour une assemblée réellement nationale, démocratique, populaire. Un texte signé l'honorable député Guy Marus Sagna.